plateforme citoyenne bu yees juddu na bis ndikki ki tey ñu ngi ko tuddee nag programme 2DL citoyen 221 ko ko jiite nag moo di Cheikh Yérim Seck di journaliste chroniqueur bile plateforme li ko tax a jóg bokk na ci banqaas yi nga xam ne moo téye démocratie bu Sénégal. dañuy ñëw wan leen lan mooy suñu feuille de route. plan d'action boobu lépp a ngi ci plan d'action boobu lépp lu ñu constitution ak loi may pour aar démocratie. danañ def ci réew mi loo xam ni kenn mës koo gis kenn mës koo xalaat te kenn mës sa jàpp ne lii mën naa nekk. plateforme bi xam ne na ko bokkul ci benn parti politique wante nag fas yéene na dugal loxoom bu baax ci tabax réew mi jaarale ko ci ubbi xel yi waaye itam dellu ci li nga xam ne moo di suñuy valeur parce que ñun duñu parti politique nekkuñu fi pour di xoolee ak di wax ak di politique ak di jéem a position déedéet ñun li ñu bëgg mooy wan réew nit ñi ni lii la ñu bëgg a def. te dañ koy def nit ñi gis ko te buñ ko defee nit ñi dañuy gis njariñ ni lii moo taxoon ñu def ko yéen Sénégal bu fekkoon ne da ngeen a bëgg ñu leen taxawal teem bu fekkoon ne da ngeen a bëgg ñoo xam dañuy veille seen ay intérêt kenn du yàq réew mi jàpp leen ni mën ngeen ko am ci groupe bii plateforme 2DL citoyen 221 bëgg na dakkal dérive yi nga xam ne régime bu bees bi moo ngi koy amal bokk na ci anam bi nga xam ne moom la ñu yore réew mi waaye itam salfaañi ak ak yelleef doomu aadama yi. gis nga ñii lépp lu ñu tegoon Macky Sall danañ leen teg lu ko gën a tar te duñ leen saaga duñ leen xas te lépp lu ñu def ci réew mi lépp lu ñu fanaanee nas. bu ñu xëyee suba ñu danañ ko fecc teg ko ci teg ko ci teg ko ci teg ko ci penc dañuy def li ñu mën ba joyanti daanaka amul benn toggaay ndaxte soobu na ci xeex bi ba noppi ci loolu mu daal di jël fukk ak juróom-ñaari avocat ngir indi ay leeral ci yenn ci ay scandale bu ci mel ni bu ONAS wala sax bu ASER.